Asalamu alaikum. yi nga xamné ne ñuy bayyi xel ci seen chaîne bi di Nihma TV ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission bi di lu ci Yalla ji wax Tay nak suñu juróomeelu émission bi dañoo ñëw walé ñaari laaj faské yéene ci ak suñu invité bi di Cheikh Mbacké Sakho kon li ñuy def moy dektal leen bu ñëkk bi ak tontom. suñu paré ñu jall ci ñaareelu bi ak tontom ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala alhamdulillah Cheikh Mbacke Sakho ginnaaw buñ la nuyoo ñoo ngi lay dalal ci suñ juróomeelu émission bii di lu ci yàlla ji wax tey nag suñu laaj bu njëkk moo ngi jëm ci li ñuy wax dellu seeg yonent yàlla Isa alayhi salaam wax yi bari na ci lool bindkat yi bind ci lu baree bari waaye nag li ñu yitteel ñun mooy lan la yàlla jàngale ci téere bii di alquran ci lu jëm ci mbir mi. kay asalaamaaleykum macha allah Ibrahima Touré. ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy topp émission bii di lu ci yàlla ji wax mu nekk émission bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla euh, gëstukat yeeg ñi bëgg dëgg wax dëgg yàlla dañ koy bëggee te di ko topp ndax gis nañ ne kat buntub gëstu bu ama am solo la te jàppandi lool wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla euh, laaj bii nga xam ne nag moom ngay laaj tey mu doon laaj bu ama am solo ndax bëri na jafe-jafe yoo xam ne am na ci diine xeetu mbir yi ñoo ko jur lu mel nii wax gi ñuy wax na yonent yàlla Iisaa day dellu siwaat ndax bokk na ki li nga xam ne mooy waral ay nit ñu bari di tuddoo ay mbir ci diine wala ñenn ñi sax di wax ne ñoom ñooy Iisaa mi dellu siwaat wala xeet yooyu te su fekkoon ne bëggoon nañ cee xam lu leer ci diine joo xam ne dëgg-dëgg diine yi yàlla la waroon nañoo mën a dem rek xool lan la yàlla waxal boppam ci loola xam nga nit ñi suñ demee bay wax ne yonent yàlla Aysa day dellu siwaat ñu bind ci nit ñi bind ci lu bari di ci wax lu bari am ci wax yoo xam ne sax dañuy dem ba di ko sosol yonent bi di wax ne moom mooy ki ko waxoon te moom kat jottali wutoon nit ñi lu dul di ko yàlla jox di ab téeréem tari wutoon mu jëm ci nit ñi lu dul ay aayay yàlla te sañul woone tari leneen nit mu jëm ci nit ñi lu dul loola kem ni ko borom bi waxee na ko wàttalu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mu mubaddila li kalimaatihi walan tajida min dunihi multahada tari lu ñu wàccee mu jëm ci yow te tukkee ci sa téere borom suñ borom xam le ne wax jooju kenn du ko soppi du am benn làquwaay bu dul moom kon loolu su fekkoon ne dellu woon nañ ca téere booba nga xam ne yonent bi moom la daan tari miy jëm ci nit ñi la yàlla wax moom la daan jottali te loolu la daan jëfe konoon lu baree baree bari dana leer xam nga yonent yàlla Isa suñ borom bëri na ay jagleel yoo xam ne defal na ko ko te yooyu ku dem ci alquran danga ko fekk rawatina ci lu mel nii suratu Maryam nga xam ne yàlla leeral na ci lu baree baree baree baree baree bari suñ fa demoon sax danañ mën a xam ndax moom dafa nekk koo xam ne day dund dee dellusiwaat ci suuf deewaat doog a dem dekki bis penc te suñ dellu woon ci téere boobu rek lu baree bari suñ dellu woon ci téere boobu dellu ci sootu Maryam lu baree baree bari dana ci mën a leer ndax yàlla waxloo na ko ci biir sootu Maryam moom ci boppam mu waxal boppam ginnaaw bi yàlla waxee lu mel ni wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu xayya wax na te jàmm yàlla nekk ci moom bis bi mu juddoo ak bis ba muy dee ak bis ba muy dekki di dund ak bis ba muy dekki di dund te wax dëgg yàlla li ñuy wax bisub dekki bi moom bis la boo xam ne ñëpp xam nañ ko ndax bisub dekki bi lu mën a xew moom mooy bis pénc te loolu yàllaa ko jàngaleel boppam moom ci boppam ci biir saar boobu mu wax ne wassalaamu alayya yawma wulittu wa yawma amutu wa ma ubaasu xayya yàlla na jàmm nekk ci man bis bi ma juddoo ak bis bi may dee ak bis bi may dekki di dund te wax dëgg yàlla maanaam lii nii nga xam ne moom la yàlla wax fii képp koo xam ne jaar nga ci àdduna dund rek yow it ci état bi rek ngay jaar nga xam ne di nga juddu di nga dee te di dekki ca bis penc ba te wax dëgg yàlla ku dellu ci alxuraan xool li yàlla jàngaleel boppam am na ci loo xam ne dina mën a leer ndax yontu yàlla Aysa jagle yi nga xam ne am na ko ci sosoom ak ci juddoom yàlla jàngale na ko waaye lu mën a xew nag nit la woon kuy dund te lu mën a xewit nit la koo xam ne kuy dee la ndax yàlla jàngale na ci alxuraan ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt di xam le ne bépp bakkan bu ne rek day mos de yàlla it ba tey xam le ne waxoon yonent bi ne ko wa maa ja'alnaa li basharin min qablikal xulda afa in mitta fahumul xaalidun ku dem ci sootu ambiya yi muy surat 21 aya 34 di nga ko fekk yàlla wax yonent bi ne ko defaluñ benn nit ci lu la jiitu li nga xam ne moom la ñuy wax ak béel mooy li ñuy wax ak sax comme li ñuy wax immortalité li tubaab di wax immortalité yàlla di wax ne defalul benn nit ci lu ko jiitu moom yonent bi li ñuy wax immortalité nga xam ne yonent yàlla Aysa nekkutoon ab immortel nit la koo xam ne dafay juddu dee dekki kem ni ko ñëpp di defee te aay bii sax muy aay bu am solo boo xam ne dana bari loo xam ne dana ko leeral loo xam ne daan nañu ko jàngal démb ci lu mel ni ci tasawuf daan ñu nettali ay nit ñoo xam ne wax ne xam ne dañ xam ne dañ ciy lim ku mel ni xudar ak ñeneen ñoo xam ne nit ñi daan nañ ko lim di wax na ñooñu deewuñu di wax na sax yenn saa yi di wax ne maam fu ñeen tuddee rek dafa fekk ñu romb fa loolu daan nañ ko jàngalee. te jooju ko mel ni ku mel ni xudar ñu wax moo jiitu yonent bi foofu wax naan moo dajee woon ak yonent yàlla Muusa ak nangam comme noonu nga xam ne noonu lañ koy waxee nga noonu la ko téere di nettalee macha allah te yàlla xamle ne moom moom defalul benn nit ci lu jiitu yonent bi li ñuy wax immortalité te lii ngay gis ay nit ñoo xam ne dañoo wax ne gëm nañ diine gëm nañ yàlla ñoom ñooy wut a saxal loolu te yàlla dàq lu mel noonu ci biir téereem nga xam ne ba tey lii sax day dellu siwaat ci li nga xam ne dinañ koy faral di wax xeetu weddi yàlla gi nga xam ne nit ñi dinañ koy weddi yàlla jamono bu ne ci di weddi ay waxam te yàlla dogal émission bii di lu ci yàlla ji wax lim ciy feeñal bari na bari na ay wax yoo xam ne nit ñi dañ koy wax jàppee ko mbiru diine wala jàppee ko loo xam ne diine la wala jàppee ko xam-xam te soo demee ci alxuraan da ngay fekk yàlla weddi ko weddi gu set wicc te lii rek bokk na ci liñ daan saxal naan ku mel ni xudar ba tey mu ngi dund ak keneen ak keneen keneen ñoo xam ne dañ leen daan lim di wax ne ñooñu dañuy dund aay bii rek da ko dàq ba mu leer nañ wa maa jaal naa li basharin min xablikal xulda afa im mitta fa humul xaalidun ba noppi nag suñ borom teg ci ne kullu nafsin zaixatul mawt bépp bakkan day mos dee te loolu nag kenn mucc ci nag bépp bakkan la wax kenn mucc ci loolu kon kenn muccu ci yonent yàlla ay said liko yalla wax lo mom li nga xam moko waxal bopam moy wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya yàlla jàmm nek ci man bis bima juddo ak bis bi de ak bis bi may dekki don ki dund nga li don lu leer lo xamne lu kenn ku ci ne meuna xamal bopam la batay tamit nga xamne fofu amul dara lu fay feñ lo xamne day wane ne moom day ci wat ndax moom di wax yàlla jàmm nekk ci man bis bi ma juddoo bis bi may dee ak bis bi may dekki doon kii dund bis bi may dekki te bisu dekki ba benn bis la boo xam ne ñëpp ca bokk yem mooy li ñuy wax comme comme li ñuy wax yowmal xiyaam ba tey tamit soo leen dellee ci alquran bi yàlla di wax ak yonent yàlla Aysa ci laaj boobu mi ko doon laaj te loolu nekk bis penc yàlla duñu ko nettali moom mi nga xam ne moom moo xam la fay xew mooy bi muy nettali bi laaj bi nga xam ne moom la laajoon yonent yàlla Isa ci sóoratu nga xam ko dem ci sóoratu Maida lim koy wax naan ko anta xulta linnaasi taxizuni wa ummiya ilahayni min dunillah ne ko waaw ndax yow yaa waxoon ne nañu la jàppee yàlla yow ak sa yaay wëlif ma man yàlla te ba muy tontu yàlla bokk na ci ay bi ku dem ci sortu ku dem sortu maida aaya cent dix-sept ko fek limi wax na ma khultu lahumu illa ma amartani bihi an ya'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim mu tek ci nak falam ma tawaffaytani kunta anta ar-rahib alayhim wa anta ala kulli shayin shahid nga xamne mom moom wax yàlla fofu moy man kat waxuma len won ludul la nga ma digaloon muy lan mooy nañu liggéeyal yàlla mii sama borom di seen borom muy kon nañu jaamu yàlla mii sama boroom di seen borom te loolu kat man man maa doonoon seede ci ñoom li féeg maa ngi saxoon ca ñoom nga xam ne moom moo doonoon seede ci ñoom ca ba mu saxee ca ñoom bi mu fa bàyyikoo nag mooy bi ko yàlla faatee mu ne ko falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim ba nga fa léegi nag moom mu wax ne ba nga ma faatee nag yow kat yaa nekkoon ku doon fuglu ca ñoom te yow kat yow yaay ki nga xam ne yaay seede bépp mbir kon moom ba fa nekkee la xamoon la fay xew ba ko yàlla faatee nag yàlla nag moo xamoon la fa ne kon moom li mu waxoon ak li mu waxul loolu yàlla xam la te yàlla moom lii na wax fii ci alxuraan nettali ñu ko li mu ko wax mooy li yentu yàlla Aysa wax mooy ba nga ma faatee kon lu mën a xew yàlla moom xam le na faat na ko te yentu yàlla Aysa waxul na ba nga ma faatee ba indiwaat ma ci kaw suuf ba nga ma faatee te lii bis penc lay xew te yàlla waxoon na ko ci kaw ne ko iz xaala allahu yaa Aysa inni mutawaffiika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladina kafaru wa jaahilu alladina tabahuka fawqa alladina kafaru ila yawmi alqiyamati thumma ilayya marjihukum fa ahkumu baynakum fi ma kuntum fihi taxtalifun yàlla waxoon na yonent yàlla Iisaa ne ko man dinaa la faat te it dinaa la ci man te dinaa laabal ci ñi nga xam ne dañoo weddi ba fa aaya booba yem yàlla li ko wax mooy man dinaa la faat te faat googu ñëw na loolu ku dem ci alquran di nga ko fekk maam boobu ñu wax léegi ci falam maa tawax fayta ni ci la bokk ba tey tamit yàlla yëkkati gi mu wax ne da koy yëkkati ca moom yàlla it wax na ko ay yoon ci alquran nga xam ne ñu bari suñuy wax ci yonent yàlla Isa dañuy wax naan waaw comme li dañuy faral di wax loolu wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walakin shubbiha lahum te ku dem ci aaya boobu di nga xam lan la fa yàlla di wax wa xawlihimu inna qatalna almasiha xiisa bna maryama rasulallah wa ma xataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladina ixtalafu fihi la fi shakkin minhum ma lahum bihi min hilmin illa itibaa zanni wa ma xataluuhu yaqinan bal rafaahu llahu ilayhi wa kaana allahu azizan hakima nga xam ne foofu yàlla saxalut na yéntu yàlla Iisaa deewut lim fay saxal mooy rey ñu ko te it crucifié wuñ ko mooy defuñ ko comme ci li ñuy wax ci croix boobu waaye nag mu ne waaye nuru na leen ko loolu la yàlla di wax te ña nga xam ne dañu caa wuute ñoom ci sikk sàkk lañ nekk waaye amuñ ca benn xam-xam la topp mooy njort rek ci loolu waaye xamuñ ca dara li mën a xew nag yàlla moom yëkkati na ko ca moom yàlla nag ba li jiitu mu koy yëkkati da koo faat ba noppi kenn ni nga ko waxee na ko indi inni mutawaffiika wa raafi'uka ilayya yàlla da koo faat ba noppi doog koo yéegal ca moom léegi nag faat googu nit ñi mën nañu wax ne ah waa léegi faat googu moom ban xeetu faat la ndax yàlla da koo rey waaye lan la def yàlla de moom moo waxoon ne wasalaamun yàlla moo waxoon ne wasalaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu xayya yàlla jàmm nekk ci moom bis ba mu juddoo ak bis ba mu deewee ak bis ba muy dekk di ko dund nga xam ne loolu yàlla ci boppam moo ko jàngale kon moom ñetti étape yooyu ci la jaar juddu dee dekki comme ni ko ñëpp di defee te loolu ba tey kenn ku ci ne yow yaa ko mën a vérifier sa bopp li aju ci wàllu faat googu lan la ci yàlla jàngale ndax kam li ñuy wax alquran lu leer la te suñ borom bàyyiwu ci dara képp kuy dem di ko settantal li ci war a leer ci yow dina leer ci yow su boobaa doo gëm mukk li la sa borom gëmloowut te it doo gëm mukk li sa borom saxalut lépp lu sa borom saxalut munoo koo gëm lépp lu la sa borom gëmloowut munoo koo gëm nga xamne ku delu batay ci alquran nga xol lu melni suratu zumar mi surat 39 aya 42 yàlla mo ngi leral ci walu fat gogu lim wax ne allah yatawaffa lanfusa xiina mawtiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي خدي عليها الموت ويصل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يا دي وخنا موم موي فات بكن ci waxtu wi muy dee ak ki nga xam ne deewut ci ay nelawam bakkan yi nga xam ne nag dañoo dee moom moo leen di ba noppi yebal yi nga xam ne ñoom deewuñu ba benn àpp bu ñu xam nga xam ne ñi nga xam ne ñoom dañoo dee yàlla day faat seen bakkan complètement nga xam ne nekkatul liy dellu dañuy nelaw yàlla day ñoom suñ demee ba léegi nga xam ne maa ñi nga xam ne dañoo dee yàlla day téye seen bakkan ñi nga xam ne ñoom dañuy nelaw yàlla day yebalaat seen bakkan ba waxtu wi nga xam ne waxtu wi ñu xam ne mooy waxtu wi nga xam ne ci lañu war a dellu kon nga xam ne lii yàlla ci boppam moom moo ko jàngale ci alquran kenn ku ci ne mën na ko xamal boppam xam faat googu yàlla di wax ci alquran naka la demee te kem moom ni mu ko waxee woon foofu kem ni mu ko waxee foofu ci sootu maida di falamma tawaffaytani kunta anta raxiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid nga xam ne moom bi bi ma bi nga xamee ne yàlla faat na ko la nekk ca ginnaawam nag loolu moom yàlla moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki ko xam kon moom wax na dundam naka lay demee fii wax na yit la nga xam ne moom lay tontu la nga xam ne moom lay tontu it bis ci suñ borom te loolu lenn lu ci ne doon loo xam ne day leeral ne mom faatu na te nekkul ku delu ci wat ndax yàlla wax nañu fi limu waxal bopam bi mi dundu yàlla wax nañu it lamuy wax bispench nga xam na mom bim fi ne ak lamuy tontu bispench yep yàlla wax nako te delu ci wat feñu ca ta sax su ngeen deme ci alquran lo xamne aya bo xamne nit ñi dinañ koy faral di tuddu waye xeyna dañ ko dul bàyyi xel ku dem ci suratu Saffi mi surat 61 verset 6 diñ fa fekk suñu borom di jàngale ne وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آية بي sax mu doon aaya boo xam ne wax dëgg yàlla nit ñi aaya bii Euh, mënoon nañoo xam ne comme li ñuy wax dellu suwaatu nga Iisaa wala ndax Iisaa dee na wala deewul konoon doon mënoon nañ koo xam ci aay bi képp ci li nga xam ne moom moo ko waxal boppam te yàlla nettali ñu ko mooy Iisaa bi mu waxee waa banu Israayil yi ne leen ne ndawul yàlla laa ci yéen maa ndawul yàlla goo xam ne day dëggal li nga xam ne moo nekkoon ci tawreet te jiitu ko moom te da leen di ci ndaw loo xam ne dina ñëw ginnaawam yaati min baadi ismuhu ahmadu wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu te mu ne da leen ci ndaw loo xam ne day ñëw ginnaawam xam nga su waxee ndaw loo xam ne day ñëw sama ginnaaw ginnaawam mooy bi mu fi nekkutale ndaw loo xam ne day ñëw ginnaawam te maanaam ndaw lool tur lool tey mu ne ndaw loolu turam mooy Ahmad ndaw loo xam ne dana ñëw ginnaawam te turam di Ahmad dana ñëw ginnaawam léegi su ñëwee ginnaawam moom fan la koy fekk loolu kay li muy tegtale mooy moom nekkatu fi te léegi nii ko yàlla waxee ci aaya yi mu doon lu leer nañ kenn du dem fenn ci alquran fekk yàlla di wax na Isa day dellusi loolu amul ci alquran kon mu doon lu leer yàlla li mu saxal mooy Isa moom moom ku. moom ku dee la nekkatul koo xam ne kii dund la ndax yàlla li mu wax wa maa jaaxal naa li basharin min qablika al xulda afa im mitta fa humul xaaliduun wax na yonent bi ne ko defuñ ci lu yàlla wax ne yonent bi ne ko maanaam defaluñ benn nit ci lu la jiitu li ñuy wax immortalité kon moom lu mën a xew dee na ba yàlla yéegal ko ca moom kon yàlla loolu la jàngaleel boppam loolu la saxal la boppam léegi nag koo xam ne dafa gëm leneen kem niñ koy waxee jamono bu ne ku gëm na yonentu yàlla Isa day dellu si waat mbir mi jafewul diine jii diine yàlla la yàllaa ci saxal yàllaa ci dàq yàlla moom moo jëloon ab téereem joxoon ko yonent bi mu ñëwoon di ko jottali te téere bi nga xam ne la doon jottali kenn du fa dem ba fekk fa benn aaya bu yàlla wax ne yonent yàlla Isa day dellu siwaat kon ñoo xam dañuy wax ne ñoom gëm nañ yàlla wax ne gëm nañ yonent bi wax ne gëm nañ téereb yàlla suñ gëmee loo xam ne yàlla saxalu ko ci ab téeréem su boobaa kon ñoom ci seen bopp lañ ne seen bopp la ñuy tardel seen bopp la ñuy nax ndax ku gëm yàlla dëggi-dëggi gëm yàlla day yem fi ko borom bi yem yemloo day gëm li ko borom bi gëmloo day gëm lu borom bi saxal waaye lu yàlla saxalut saxalu ko fenn ay nit nag su ko gëmee su boobaa jafe-jafe yu ñu ci mën a am nag diggante moom ak boromam loolu moom la waaye daal lu mën a xew ay yii ñu fi joxe kenn ku ci ne yaa ko mën a vérifier sa bopp mën ko xamal sa bopp xam li yàlla saxal ci yonent yàlla Iisaa ak lum ci saxalut koo xam ne nag da ngaa bëgg a gëm leneen wala yow ngay wut a saxal leneen li mën a xam li nga xam ne daal mooy lu leer nañ mooy yonent yàlla Iisaa dana dellu siwaat moom kenn du la indil benn aaya buy wane loola kon loolu wax dëgg yàlla macha allah nekkul lu jafe macha allah kon kontaan nañ lool jërë ngeen jëf wasalaamualeykum alhamdulilah macha allah Cheikh Mbacke ca dëgg dëgg tontu bi leer na te képp koo xam ne dëgg rek a ko ñor te jëmm yàlla ji tax su déggee lii dina xam ne diine moom ca dëgg dëgg yàlla képp moo koy jàngale te waxi yàlla képp moo ci wér. kon ni ñuy def rek mooy jàll ci ñaareelu laaj bi moom it mu ngi jëm ci lii nga xam ne moom la ñuy wax imam mahdi ndax imam mahdi day ñëw bay dajeek yonent yàlla Insa comme niñ koy waxee. wala loolu ay wax la rek yoo xam ne doo fekk fenn fu ko yàlla jàngale ok macha allah euh, Ibrahima Touré di wax na tey moom kontaan nañ lool ci ñaari laaj yi nga xam ne moom nga indi xam nga laaj yi euh, lii wax dëgg yàlla su leeree ci bopp nit ñi li mu mën a faj ak li mu mën a defar lu bari la lool ndax ñaari mbir yi daf fi yàgg nit ñi di ko gëm di ko wuta saxal ay nit di ñëw di ko woote woo di saxali mbir di ci woote woo lu ne ay xeetu mayak lu ne nga xam ne dafa nga xam ne ñaari mbir yi dañoo doon ay porox ndoll yoo xam ne li mu jur ci jafe-jafe ci nit ñi kenn xamul ni mu toll te kam niñ koy waxee su fekkoon ne dellu woon nañ ci téereb yàlla di ko xool ngir bëgg xam lan la yàlla jàngale ci ñaari mbir yi konoon lii faju na bu yàgg waaye nag kem ni ko borom bi waxee rek ci alxuraan yàlla di ñu nettali ne ndaw li ci boppam moom moo koy waxal boppam ëllëg li muy wax ne waxaala rasulu ya rabbi inna xawmi yattaxazu hada alqurana mahjura loolu muy wax noonu ci suratu furxaan muy surat vingt cinq aya trente mooy li muy wax ne euh, li nga xam ne yàlla day nettali ne ndaw li ci boppam moo wax ne yow borom bi samaw nit kat gàddaay nañ alquran ji ñaari mbir yi li ko saxal ba tax mu mën a jur jafe-jafe yii mu jur ci nit ñi ndax duma wax da jur ci diine déedéet ndax diine moom lu leer la diine dëggi dëggi diine mooy diine yàlla in na diina hindallahi lislaamu diine fa yàlla mooy islaam mu loolu juru ko ci islaam ci diine yi nga xam ne kay dafay ne di tuddoo islaam ci diine yooyu la jur ay jafe-jafe mooy li mel ni xaaj yi nga xam ne moo fi ne ci lu mel ni njàngalem ahlu sunna wala jamaa wala ahlu chia wala ñeneen ñi ci ñoom ngay fekk xeetu gëm-gëm yooyu waaye ku dellu ci téereb yàlla tënku ci téereb yàlla tënku ci li ko yàlla tënkuloo kooku moom lii mënta nekk jafe-jafe ci moom ndax kooku lépp lu muy gëm ak lépp lu muy weddi lu ko borom bi di gëm loo lay doon li ko borom bi di weddi loo lay doon ndax xam nga lii nga mujjee laaj mu jëm ci li ñuy wax imaamul mahdi yàlla dafa dogal yaakaar naa yàggul dara xëy na daaw la fii ci réew mi am ay nit ñu ma yónnee woon ab lien ay nit ñoo xam ne dañ doon def ñu ne ab debaa di wuta saxal li ñuy wax imaamul mahdi ñoom sax ñoom ñoo ñëpp gëm nañ ne lu am la ñoom waaye dañ doon wax ndax ndax diw wala du diw xëy ci xeet yooyu la ne newoon yàlla dogal man mii ma am lu ma ci jot a déglu léegi ginnaaw gi bi ma ci déglu naa ci lu xaw a bari bi ma ko dégloo ba ci kanam reetaan daf ma jàpp dama ne lii di tax reetaan jàpp ma mooy ndax dama ne lii nii waxtaan wi du muy xumb kii di xëcc fii kii di xëcc fii te wax ji li muy bari bari bari déggoo ñu indil la benn aayab alxuraan buy saxal ñoom loolu ñuy wax xanaa kay lu toll nii ci diine ak dayo biñ ko jox ak rëy gi mu rëy xanaa kay lu bon bon bon bon war nañoo mën a fekk benn aayab alquran bii saxal lii ñuy wax ñëw ak imaamul di waaye kenn du la wan benn aaya ci alquran benn laa wax benn ndax booba am na ñu doon laaj may leen lii amul benn aaya bu koy saxal ci alquran benn aaya benn benn aaya bii saxal ñëw imaamul di amul ci alquran yow nag yow mbir moo xam ne da nga naan diine la ci diine la bokk ay nit ay nit gëm ko ay nit di ko wootewoo ay nit di leen ko jiiñ ñu am ci ay daraja ak i dayoo di gëmloo nit ñi ay daraja ak i dayoo nit ñi di ci wax wax yu ne wax yu rëy yu ne ba nga xam ne fii ci réew mi sax maa ngi ciy gis koo xam ne ci jamono yii lu ne lañ ciy wax di wax ay xeetu mayek lu ne te soo demee ci téere bi yàlla doo fekk benn aaya bu koy saxal doo fekk benn aaya bi wax jëm ca doo fa fekk benn aaya bu koy jàngale waaw ndax loolu nit ñi waruñ ci woon a xelaat naka la ay nit mën a toogee di wax di werante di xëccoo ci mbir moo xam ne dañuy wax ne ci diine la bokk te soo demee ci téere yàlla mi nga xam ne moom moom diine ji doo fekk benn aaya bi jàngale lu ni mel ndax loolu nit ñi waruñ ci woon a xalaat moo tax laaj yi nga laaj tey day wax dëgg yàlla day laaj yoo xam ne dina tax nit ñu baree baree bari seeni xel ubbeeku ci lii ndax lii porox ndoll la boo xam ne seytaane sax da ciy jaar di profiter ci nit ñi di jël ay nit di leen waxloo di leen jëfloo muy jur ay wuute ci diggante ay nit ba am na ci yenn barab yoo xam ne nga xam sa jur na fa sax ay rayante ci xeet yi te ku dem ci alxuraan doo fekk benn aaya bu koy jàngale benn aaya ndax li ñuy wax al mahdi suñu waxee imaamul mahdi damay wax ne dafa am ay baat yoo xam ne nit ñi dañoo waroon a fexe di ko firi ci seeni làkk xam nga soo ñëwee ci li ñuy wax diine ci xeetu manipulation yi nga xam ne nit ñi dinañ ko ciy dugal bokk na ci dafa am baat yoo xam ne daanaka duñ ko mës a firi ci arab bi rek lañ koy bàyyi su ko defee ñi nga xam ne yàlla dogal na yeewuñ ci loola baat yooyu dañ koy jël baat yooyu dañ koy jël rëyal ko bokk na ci lii ñuy wax imaamul mahdi nga xam ne su ñu waxoon lan mooy al mahdi mooy koo xam ne rek dañ koo gindi waaye léegi ku ñu gindi léegi loolu léegi luñ ciy xaar nit ku ñu gindi jamono bu ne day am yonent bi sax moom ci boppam mahdi la woon yonent yu ko jiitu ay max dii lañu woon ginnaaw bi mu fi bàyyeekoo ay max dii day am mooy loolu mooy lan mooy ñoo xam ne dañu leen a gindi ñi yàlla gindi ba keroog àdduna tukki day am ku yàlla gindi ci boppam kay yàlla gindi na la yow max dii nga kon luñ cay xaar ak su ñëwee lan lay wax ndax day ñëw di indi lu bees wala day ñëw di wax lu bees déedéet diine ji dafa mat bi téeréb yàlla mate li yàlla di jàngale lépp jàngale na ko ci téeréem képp koo xam ne yàlla gindi na ko ci téere ba kooku rek képp koo xam ne yàlla gindi na ko ci téere ba kooku gindeeku la képp ko yàlla gindi ci téere bi ku gindeeku la waaye amul kenn koo xam ne dañ koy xaar muy ñëw di indiwaat leneen wala di ñëw di saxal leneen yàlla li muy saxal saxal na ko ba noppi te diine ji mat na ba noppi li jiitu yonent bi di fi bàyyi ko ku yàlla gindi ku ne li yàlla saxal lay saxal li yàlla dàq lay dàq ku yàlla gindi ne li yàlla saxal lay saxal li yàlla dàq lay dàq te xool leen li nga xam ne moo fi ne nit ñi di ko tuddoo ak yi nga xam ne nit ñi dañ koy woote woo ba mu tax ñuy wax naa ne yonent bi feeñu na leen ak xamal leen lii wak yonent bi defal na leen lii wak bi may na leen lii te yonent bi moom ndawul yàlla rek la woon bu ñëwoon di jottali kàdduy yàlla jottali ko ba mu mat mu bàyyi koo fi kàddu ya doon jottali mu ngi fi te kàddu yooyu képp ku yàlla gindi su ñëwee loolu lay wax nit ñi mënu leen a wax leneen su leen waxee leneen rek kooku nekkul ku gindeeku ndax soo leen demee ci alxuraan yàlla bokk na ci li muy wax wali kulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun yàlla day wax ne maanaam xeet wu ne walla génération bu ne wala cycle bu ne dafa am yemuwaay suñu yeggee ci yemuwaay boobu kenn munu koo yéexal donte ab saala kenn munu koo gaawal donte ab saala yàlla lan la ca teg yaa bani aadama imma yannakum rusulum minkum yaqussuuna alaykum ayaati fa man ittaxee wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun foofu ci suratul araaf yàlla di wax ne ey yéen doomu aadama yi suñu ndaw suñu leen dikkalee di leen nettali suñuy aaya ku bàyyi xel te na doo ragal waxu malaak ngay jàq kon ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di wax ci kàddu yàlla suñ ñëwee waxu yàlla képp la ñuy wax te yàlla moom ay waxam wax na ko ba noppi wax ja mat na kon ku fi ñëwati lan ngay wax li fi ne di téereb yàlla soo ñëwee di wax ci loola ngay wax waaye mënoo wax leneen lu bees dañ ma rañaane dañ maa defal lii su ma demee ca diwaan baag ca xadara baag ca jotaay baag waa xay boog yooyu yépp nit ñi di wax ku dem ci alxuraan doo ko fa fekk te porox ndoll yii nii muy dellusiwaatu Iisaa ak li ñuy wax imaamul mahdi moo jur jafe-jafe yooyu te moo ne yàlla jàngalewu ko fenn yàlla daal li mu saxal mooy ay ndaw te ndaw yooyu comme ni ñu koy waxee ba keroog àdduna tukki day am waaye nag kenn du fi ñëw di wax lu génn téereb yàlla ku ku fi wax lu génn téereb yàlla li ngay wax wérut ndax yàlla diine ji mat na ci bitti maanaam ci bu téere bi mate képp ku ñuy dégg muy wax lu wuuteeg li borom bi wax daraja juñ ko mën a jox ak cër buñ ko mën a jox ak nuñ ko mën a woowee la muy wax wérul yàlla la muy saxal saxal na ko cib téeréem la muy wéral wéral na ko cib téeréem la muy daganal daganal na ko cib téeréem la muy araamal araamal na ko cib téeréem ku wax leneen ku ne la ngay wax yow la concerné waaye loolu concerné wul way gëm yi ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dëggi dëggi gëm yàlla ñooñu waxu yàlla la ñuy topp yonent bi mu fi nekkee lam doon tari mu jëm ci nit ñi ay aaya yàlla képp la ku dem ci alquran yaa ko fay fekk wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin loolu ñëw na ay yoon ci alquran suñu lee maanaam suñuy tari ci ñoom suñu aaya yu leer yi yàlla lu wax yonent bi mooy واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا تاري لي نيو واتي سي ياو مو توكي سي سا تيري بوروم واخ جوجي كين دوكو سوبي تا دو ام بين لا خواي بودول موم يالا واخار نكو نكو اوتل ما اوحي اليك من الكتاب واقب الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون nga xam ne yàlla moom li muy jàngale lu leer naan ñi la yonent bi suñ borom sant ko woon mu tari ci nit ñi lu dul ay aayaam kon ku fi mën a ñëw ne di tuddoo naan maa fi nekkal yonent bi ak moo ko doonnoo ak moo ko liiw ak moo ko moo ko fi toogal ak nangam nangam ñëw di wax lu wuuteeg la yonent bi daan wax te mooy lan mooy ñëw di waxat mooy ñëw di wax nit ñi lu wuuteeg li yàlla waxal boppam ci téere bi ku mën a doon ku ne la muy wax wérut ndax soo xoolee jafe-jafe yooyu li ñuy dégg ñu naan wàllu yu yéeg awliya yi nangam nangam yooyu ba tey ci loolu la bokk daa bokk ci baat yi nga xam duñ ko firi ci arab bi lañ koy bàyyi nit ñi duñ xam lu muy firi suñ waxee yu mënoon nañ ko firi ci wolof lu tax duñ ko firi ci wolof pluriel bi mooy awliya lan moo tax ba duñ ko firi ci wolof imaamul mahdi it naka jekk noonu la demee te lii nii li aju ci wàllu wàll yi ku dem ci alxur ku dem ci alxuraan leer na fa naññ li yàlla wax ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun gaa yi nga xam ne dañoo wéeru ci yàlla ñoom ragal du nekk ci ñoom waxuma laa ñuy jàq yàlla moom moo définir ñan ñooy wàll yi lan la wax mu ne allazina amanu wa kaanu yattaxuun mooy gaa yi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey bàyyi xel yàlla kon kii gëm yàlla tey bàyyi xel yàlla rek ku wéeru ci yàlla nga loolu la ñuy wax wàllu yu waaye suñ koy wax nga jàpp ne ay nit ñoom ay super pouvoir lañ genre superman yooyu noonu nga xam ne yooyu yëpp ay xeetu nax la yuñ dugal ci mbir yi di créer lu mel ni ay man di créer ay gratak ak ay xutboog ay aqtaab ak ab daal ak nangam nangam nga xam ne ku dem ci seen téere yooyu lu mel ni so ndax téere yooyu man mii amoon naa ko bu njëkk ba lu mel ni ma lu mel ni comme ni ñoo xam istilaaxaatu suufiya nga xam ne soo demee ci téere yooyu nga xam ne dañoo am seen i vocabulaire bopp di créer ay tolluwaay ak di créer ay maxaama ay daraja ak ay tolluwaay yoo xam ne daanaka yow soo demee ci yow soo demee ci église bi da ngay ci lañ inspiré woo nga xam ne day am pape bi ci kaw am ay cardinal ak ay évêque ak archevêque yooyu nga xam ne ci yooyu rek lañ nekk. nga xam ne yii boolewu ko diine diine dafa gën a jàppandi lii diine dafa gën a yomb lii. diine dafa ñëw ngir niteel nit ñi ñëwul ngir tënk nit ñi nit ñi suñu xamee seen borom lim bëgg ci ñoom digal leen ko tere maan digal leen ko tere leen ko ñu bàyyi loolu xel doxee ca kem nañ ca war a doxe ngir mën a liggéeyal yàlla ci kaw suuf weesuwul loolu waaye diw la ñuy xaar ak diw ma ñuy xaar ak kenn ku ci ne di fëlee fee di wax ne man maay diw moomu ñuy xaar di tuddoo lu ne nit ñi nekk ci di sonal seen bopp te la ñuy wax soo demee ci téere bi yàlla doo fekk benn aaya bu koy jàngale loolu ñu bëgg ci sax ba kañ loolu amul benn njëriñ nit ñi ñoom seen bopp dafa jot ñu wute yeewu te laaj yi nga laaj dafay lu am solo ndax li ay porox ndoll la yoo xam ne li mu yàq kenn xamul nu mu toll jafe-jafe yi jur ak xaajaloo gi mu jur kenn xamut nu mu te moo ne kat suñ ci demoon xooli ko ci téere bi yàlla mu leer nañ danañ xam ne lii kat ndekete amul fenn fu yàlla jàngale lu ni mel teewut nag ñu ngi cee nettali nettali yu ne di di wax naan yonent bi moo waxoon lii moo waxoon lii moo waxoon laa mu mel ni yonent bi moom daa mën a saxal lu yàlla saxalut wala moom daa mën a jàngale lu yàlla jàngalewut te kam niñ koy waxee kenn dem ci alquran yàlla di wax ne maanaam ku sosol sama ndaw sos yi moom moom lañuy ñuy sosal ndax ndaw li jottali ay kàddoom moo ko tax a jug kon suñ ñëwee ne ndaw li wax na lii te soo demee fa kàddu yàlla ya nekk doo fa fekk kooku sosalut ndaw li yàlla ci boppam lay sosal kon laaj yi nga laaj nii tey di sujet bi yi nga xam ne moom nga ba tey lii liñ ci war a maanaam lii liñ ci mën a wax lu baree baree bari la loo xam ne dina tax nit ñi gën a ubbi seeni bët gën a bàyyi xel gën a xalaat ci mbir yi te su boobaa dinañ xam ne liñ gëmoon ak lañu jàppoon mu jaraloon lan yenn yi ñu daan sonn ci yenn yi dinañ xam ne loolu bokkut ak mbir mi mbir mi daal lenn képp la mooy dellu ci yàlla ba jeex tàkk dellu ci waxu yàlla tënku ci ba jeex tàkk képp kenn ku mu mën a doon làkk bi nga dégg nga dem di ci liir téereb yàlla comme niñ koy waxee écart de traduction yi am na ci waaye bariwul lool te su boobaa li war a leer ci yow dina mën a leer ci yow te ku mu mën a doon koo xam ne dem nga di lii téereb yàlla ci langue bi nga dégg di nga xam ne xeet yii ñuy wax nekkul ci téereb yàlla yàlla jàngalewu ko fenn te te it wax dëgg yàlla lu jàngale ah, te wax dëgg yàlla lu yàlla jàngalewul ci diine nag wax dëgg yàlla bokkul ci diine yàlla kon daal wax dëgg yàlla lii moom comme niñ ko waxee li liñ ci mën a wax bari na li ci mën a leer bari na lu kenn ku ci ne mën a dem gëstul boppam la xool ndax yàlla dafa am fenn fu mu jàngale loola képp koo xam ne da wax ne da ngaa gëm ay imaamu mahdi wala nangam su la neexee nga gëm ko waaye soo ko gëmee it bu ko tuddee diine ndax àdduna du yàgg ba nga indi benn aayab yàlla bi jàngale loola te képp ku yàlla gindi ku ne ab mahdi nga amul leneen. ku yàlla gindi ku ne rek ab mahdi nga kon képp koo xam ne yàlla gindi na la ci boppam gindi la ci téeréem ab mahdi nga mbir yi foofu rek la ne nga xam ne noonu rek la semple amul lenn lu ci compliqué complication yëpp loolu jafee li mbir rek la daanaka tënk ci ay nit te loolu dara boolewu koog diine yàlla dara boolewu koog njàngaleem yàlla mi nga xam ne moom la joxoon yonent bi mu koy jottali te bàyyi ko ci ab téereem kon loolu mu doon lu leer naa ñu macha allah kontaan nañ trop wax dëgg yàlla di rafetlu bu baax lépp jërëjëf jërëjëf wasalaamaaleykum. alhamdulilah macha allah Cheikh Mbacké Sakho ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu yu leer yi ca dëgg-dëgg leer na ni lii ñuy wax dellu seeg yonenti yàlla Isa alayhi salaam wala lii ñuy wax ñëw ak imam Mahdi amut lenn lenn loo xam ne. yàlla jàngale na ko ci téereem bu màgg bi di alquranul karim kon nag mbokk yi jot na sëkk ñu dellu ci téere bi yàlla di ko càmbar ak di ko settantal te pare pour topp borom bi subhaanahu wa taala comme nim ñu ko digale waaye wax yi nga xam ne dañ koo wax ci biti bind ko ci yeneeni téere te amul lenn lenn lu ci dëpp wax waxi yàlla képp ku ko topp fii ci àddina coono ak jafe-jafe képp nga ci jële te yawmal xiyaam bugal mu métte métti mën na la cee fekk kon nag mbokk yi ñoo ngi soññi ñëpp ñu delluwaat ci téere bi yàlla ndax yàlla diineem diine ju jàppandi la diine ju noppale la waaye nag lépp loo xam ne bokkut ci diine yàlla coono yu métte métte ci nekk te benn fay amu ci lu dul mbugal rek kon mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal ci topp bi nga xam ne yéen ñu koy topp ci seen émission bii di lu ci yàlla ji wax lii lañ leen indiloon tey ñoo ngi leen di jox dig daje ci beneen émission ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala assalaamu aleykum